فكل من قد قدر مولد أفضل الورى معصما مبشرا بشكر أو لحم فإنه قد سفرا بما يديم بشرا ولا يلاقي الدررا يوم اجتماع الأمم فمن تاسينا مولد سيد الورى تباركا فسيرا نمو بالفرغم فمن تامن أيعا لمن لو قد قرى مبجلا فعبا xayraati ahlil himmami bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayyiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sawin wali wali barke borom taif bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ak biti réew mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir sama borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ko ñaanal sëriñ ahmadul muxtaar mi yor caabi buntu kër cheikh mu moustapha al karim di ko ñaanal sunu wayjur cheikh abdourahman mi yor caabi buntu kër sëriñ cheikh ahmadou mbàkke génn fatma waaye di ko ñaanal sëriñ moussa mbàkke njeñ mi yor caabi buntu kër sëriñ mbàkke mouhamad njabootuk sëriñ xaadim mbàkke ibnu sëriñ mouhamad mbàkke taif ci Louga ak mbooleem démembrement yi ko composé muy section Louga wilaya ci fédération bi xidmatul xadim di njabootu sëriñ xadim bi mu àndal di liggéeyal ak ànd liggéeyal sëriñ bi ñoo am mbégte di woo bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne amul lu moom te sëriñ bi jotoon ndigal ci wajjëna bu tedd sëriñ Mbàkke Muhammad muy màggal guddi gane ak àdduna sangu sang yi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamaamam jëni woon mawliduhu muhassamu mubarakun muhtazamu tax si mu xëyante ala subi taxadumi bis boobu moo del siwaat yemoon ak kañ altine le 18 octobre mille vingt 2021 di fukki fan ak ñaar ci weeru rabihu awal atum 1443 fan la koy defee fii ci pàkk bu tedd bi di kër Serigne Louga ba yaat bi nga xam ne moo jàkkaarloo kër Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha ñu ci woo ko jullit yëpp ak bokki taalib yëpp fu waay mën dégg sunu kàddu bàyyi Alaaji Daawuda Fall na nga waajal bis bu rëy bis bu nu baaxoo waajal naka lañ ko war a waajalee. mooy bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag nu yàgg koo amal waaye nu toogaat ci kanam nag ki nga xam ne si mooy sunu sëriñ sunu sang sunu yaakaar tey ak ëllëg di sunu buntu nag ci kër Serigne Touba Khadim Rasoul waaye di sunu buntu ci kër Cheikh Moustapha al Karim kooku mooy kan Serigne Khadim Mbacke ibnu Serigne Mbacke Mohamed toog nii ci sunu kanam nag nuy ñaan ci yàlla mu yàgg fi lool ci wér ak njabootu Serigne Touba yëpp ak taalibe yi bisu boobu nga xam ne si nag mooy bisu gàmmu ñu fas ko amal comme ni ñu ko daal amele comme ni ko Cheikh Mbacke bu waxee léegi ci place bu mag bii nga xam ne si mooy bayal bi ci makkaanum Serigne Touba waaye kon bis baa noonu bis boobu nag ki nga xam ne si mooy Serigne Modou Mané Guèye di premier vice président wu section bi topp ci sëriñ bi fa tabarakallah mi ngi woo bokk yooyu waaye bi su boobu soxna Anta Ndiaye Dieng mi nga xam ne si mooy président village des femmes mi ngi woote comme ni nga ko daan defee jigéen ñi xam ne si ñoo nekk ci biir commune bi ak département bi yëpp caaju ci Daaru Xudoos ñu ngi leen di woo ci bisu boobu di leen ko soñ di xam ne bis bi seen bisu bopp la waaye bisu boobu sëriñ mi nga xam ne si mooy président village des jeunes ànd ak jeunesse bi yëpp nag waaye ànd ak waa village bi dana ànd na ñu ngi koy nag soññe nag ci ñi nga xam ne si ñooy daayira yi nekk ci biir commune bi ak daayira yi nekk ci biir département bi yëpp di leen xamal ne bis bi seen bisu bopp la bisu boobu nag sëriñ bi ci boppam mi ngi xam la ni mi ngi ci woo ku mu bokkal Serigne Touba ku nekk waaye mi ngi ci woo ku mu bokkal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen xamal ni bis bi bisu njàmbur la waaye bi bisu lépp la. jërëjëf Serigne Maodo Fall ñoo ngi jox kàddu gi Baye Samba Fall ci turu mag ñi. may wax ci turu Modou Mané mi nga xam ni. moom mooy jëwriñu section Louga moo moo topp ci sëriñ bi mu ni mi ngi dañuy woo maanaam mbokki taalibe yi ñu nu bokkal Daaru Xuddoos te ñu nekk ci biir commune bi ak ci biir département bi bàyyiwuñ ci kenn ba Sénégal gépp fépp waaye mën a jóge te jullit te nu bokk sëriñ Touba nee na sëriñ bi nee na mi ngi lay mi ngi lay yëgal bis bi muy bisu gàmm di altine 18 octobre 2021 di ko di ko yëgal kilifa diine yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal dëkk bi ñi nga xam ni danoo danooy jaxasook sëriñ bi ñoo ñooñu sëriñ bi nee na mi ngi leen di yëgal bis bi al bisu gàmm gi nga xam ni bisu boppam la ndax li tax muy bisu boppam mooy ndigalu sëñ Mbàkke Mouhamed moom la ko ci la ci ndigal loolee ci la ci la tënku te di ko di ko def muy bis bi nga xam ne amul lu dul moom kon mu ngi ciy woo mbokki julli yëpp di ci woo mbokk taalibe yëpp di ci woo nag département bi bàyyiwuñu kenn képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah te nekk ci région bi rek wala nga nekk Sénégal sëriñ bi nee na mi ngi lay woo ci bis bi. jërëjëf bay Samba ñoo ngi jox kàddu kon sëriñ Xaadim Seck ci turu wilaaye jeune. mbokk taalibe yi mbokk jullit ñi ñu ngi leen nuyu baax eh, di fas yéene yëkkati ci kanamu sëriñ bi di sëriñ Xaadim Mbacke Mohamed ci woote bu yaatu boobu nga xam ne yàgg na koy woote yàgg ko ànd ak mboolem mbokk taalibe mboolem dëkkandoo yi mboolem waa Louga waaye mën na ne mboolem waa Sénégal. moo xam mbooleem ñu aj ci fédération bi la wala mbooleem fi ab mbokku taalibe bi di jóge rek moo xam wëlëral moo xam euh, di woote bis ba nga xam ne mooy bisu euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam am moo taxoon sëriñ bi di wax ne ta'zimuhu bi sunnati sëriñ bi teg tànkam foofu ba mu ci amee ndigal ci woy juróom ba ba léegi mooy woote ko te dundal lépp ci sunna njàngum alxuraan njàngum xasiida ak euh, berndeek zikkar ak fanaane tant ngir jëmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu ngi ciy woon ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo aju ci euh, comité directeur wilaya Zane bi moo xam ñu feet ci biir dëkk bi la moo xam lu génn dëkk bi la moo xam fu mbooleem mbokk taalibe nekk tey ndaw war ko ànd ak ñun rek ñu ngi ci woo ñëpp di wax na liggéey bi door na waajal bis bi incha allah di ñaan suñu borom may ñu àgg ci ak jàmm ànd kook sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Xaadim kàddu yu rafet na noo ngi jox kàddu yi sunu yaay soxna Anta Ndiaye Dieng ci turu Wilaya Femme bu Louga maa ngi sant yàlla sant yonent bi di sant sëñ Touba sant sëñ Xaadim yàlla na fi yàgg lool te am wér yàlla fi am téeméeri at ak fukk ak juróom-ñett wu dara mànkul ak xale yi ak mag ñi ak mboolem jullit léegi nag nun noo ngi dem ci gàmm gi gàmm gi mooy sunu gàmm màggal gi jàll na waroon sunu màggal gàmm gi mooy sunu gàmm maa ngi woo ñëpp nag bu kenn des maa ngi woo góor maa ngi woo jigéen maa ngi woo sama mbokki daayira yi xam naa ne nun bëree nun rek jigéen ñi kenn du dem banu maa ngi woo wilaya femme maa ngi woo wilaya jeune yéen ñëpp xale yi da ngeen yéenay jiitu léegi nu topp suñu gannaaw ndax ay mag lañu maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ Touba bis bi lu waaye am na ci def lu waaye amul na ko jéem def ko ci ndax bis bi jar na lu ne bis bi jar na lu ne man de jaral na ma lu ne te sama mbokki jigéen jaral na leen lu ne luy tardé moom du ci ñoom barke sëñ Touba sant naa yàlla sant yonent bi sant sëñ Touba jërëjëf soxna Anta kon noo ko jox kàddu gi sëriñ Sayar Cissé mi woon wàllum njàngum alxuraan mi ak xasida yi di jiital ñu wéb siyaar suñu xaadim ak suñu nga xam se ni moo dem yéen ji am ci toolam mbaam bépp suñu ba mu def ko ñu ko bëggat lépp an di di wax rek di soññee rek comme ni nga ko daan soññee ci li bi nga xam se ni moom la jàngul ci lu jëm ci wàllu alxuraan ji ak xasida yi maamam yi mu wax ne maanaam alxuraan ji lu mu gën a baree ci la gëne la langue cosaane maanaam ñetti kaamil mais lu mu gën a bare fi mu ci la gënee lu jëm ci xasida itam mooy muqaddimatul xidma ak nuuru daarayni mafatihul bisri jasbul xuloob mawaahibu naafix muqaddimatul amda toxfatul mutadarriina ak euh, ay xasida ayatul kursi ak jaalibatul maraqib ak fulkul masfun yii xasida la wax nañ maanaam nañ ci jàng lu mu gën a bare moo gën donte kan a xasida Sëñ moom yëpp a baax waaye comme xas ba am yu mu tudd rek xam naa ku ci mën a tënku euh, mooy gën euh, génnewuñ ci gën xasida nag waaye daal ku ci mën a tënku tam mooy gën ñu góorgóoru ci baax rek ndax it ki ñu koy def tam da koo jar ndax ku toona Seydina Muhammad ñu ne maanaam a bisam la ñuy màggal kooku maanaam ñëpp ñoo ci war a góorgóoru ñu nag nañ ci am ak sant goo xam ne ci war a sant borom ndax ku ñu suñ borom féetal mi sëñ xaarim bisub gàmm la ñëpp xam ne mooy bisam mm-hmm. tey dafa nekk farata ci bépp kilifa kilifa diine dafa nekk farata ci yow ni ko maam joxe mawlidoo muazzamun mubarakun muhtaramun tansimuhu yanxatimu ala sawi taqaddum noonu ko Sëñ Tuubaa waxee kon nag suñ suñ borom dañoo baaxee suñ xam ne suñ sëriñ moo mu jàpp bis gàmmu di ñu nekk ab bisam ñun dañ ci war a góorgóor baax taxam na maanaam ndigal li mu ko jëfee dañ ci am ñaari tuyaaba tuyaaba yi jëfee sa ndigal sëriñ muy lu kawe ak tuyaaba yi màggal guddig Seydina Muhammad mu loo xam si ni maanaam fe féete kon nag nañu ñaan suñu borom kàttan nañ ba nga xam si ni ñu ko suñu borom bëgg nañu ko defee noonu lépp ana tafiq allahumma salli ala sayyidina muhammad wa hab lana dhurriyatan tudimu alhamala sala ya qadim jëmm joo xam ne aw doxinam lépp ci ak taalibe la ko teg ndax Serigne Touba aw sant kenn ci bokk ak moom pas-pas rek ak yéen a ju raf ci lañu bokk ak jëf kon ñun ñëpp nu bokk déglu suñu yaakaar tey ëllëg Serigne Khadim Mbacké ibnu Serigne Mouhamed Mbacké Taïf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki taalibe yi ñu ngi fas yéene joxe ndigal lu diis ci nun waaye nag ak cant rek lañ koy def ndax ku sëriñ bi na waxal boo xamut li nga wax it dana la déy li ngay wax kon mu fas yéene tàmbali waxee ci xelum sëriñ bi sëriñ bi nee na mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mu ngi sant yàlla bu baax di santal ñëpp yàlla te di wax na ko ñëpp santal yàlla nee nag mi ngi tàmbalee di ñaanal way dawlu yu yàgg ya ak yii teew xam ngeen li nu yend woon tey nee na e, na mbooloo mépp àndandoo sant yàlla ndax am ndigal dafa baax waaye am ndigal amaat ndigal ca biir ndigal ya day tax mu gën a baax nee nag toogaay bii ni mu mel kàddu yi fi jóg li ko waral mooy wane rek ne kenn ku nekk wet ga nga féete sëriñ bi dala caa wóolu jox la ko te nga di ko doxal doxin wu rafet ci siraatal mustaqima nee na mu ngi leen ciy gërëm nee na wàllu boppam nag la mu waxoon rek moom lay wax ma ngay sant kilifaam yi nekk ci kanamam tàmbalee ko ci sëriñ Moustapha Mbacke di jëwriñam ci këriñ sëriñ Mbacke soxna Lo di ñaanal sëriñ Abdourahman ak kilifa yi daara xuddoos yëpp ak sëriñ Ahmadul Maxtaar ba ci euh, sëriñ Muntaqa di wax ne. li mu leen daan fàttali rek loolu rek lay fàttali ndax loolu ko moo ko fi bàyyi ragal yàlla jaamu yàlla sellal setal dëgër pas-pas te rafet yéene nee na lii rek moom lay santaane nee na nag li tax mu wax ne nan jàng nangami xasida xam na ne taalibe yi xër nanu lool te it li sëriñ bi bind bari na lool wante diggante fii ak gàmm loolu yi mu fi joxe su ci nit ñi nab nabee ba ca bis ba ñu ànd ak moom ba gàmm gi jeex am na njort lu rafet ci ne la ñu wax ci kuy rafetal di waajal gàmm danga koy waajal lu sori ndax ku tedd ki Serigne Touba mag ñi ko xam nee nañu bu weeru gàmmu masoon a teru lu masoon a jafe soo ko wutee ci moom am ko bu dee lu baax ndax lu baax rek am fa moom kon moom itam moo tax mu wax ne nañ gàttandoo weer wu tedd wii ak xasida yii nga xam ne comme wadde sag nopp dana xam ne xasida yëpp a baax waaye yii moom euh, defe naa ne ca yee ca kanam yi kanam la bokk kon nee na nan ko fonk te it nee na fàttewul mag ñi nga xam ne ba yëf yi tàmbalee ba léegi ñoo nekkoon ci ginnaawam di jàpp tëw bay ba seenu njaboot tey ji nee na jarut muy tudd kenn ndax ñun ñëpp noo fi nekk ndowoon di wàllu ndey di wàllu baay di wàllu maam ñëpp a ngi fi nee na daal lu Serigne Touba di fay ku doxee ndigalam yàlla na ngeen ko am lu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sotti ci weeru gàmm yàlla nañ ko am te buñ ko amee yàlla nañ ko téye te buñ ko téyee yàlla bu mu yàqu wax ji nag mën naa gudd lool waaye lii la ma waxoon ne soo ko ci sànnee li ci des nit ñi danañ xam la ca daj ndax sëriñ bi fenn rek lay daan waxee mooy li mu nekk nit ñi xam nañ ko jarut mu di ci wax li mu bëgg nu nekk ci moom la ñuy joxoñ te yaakaar na ne ñëpp nekk nañ ci waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk kon xew-xew baangoog dañuy yendoo jàng alxuraanu karim ak xaside Cheikhuna Ahmadou Bamba xaadim sama sëriñ xaadim Guèye mooy fanaani guddi gi sëriñ bi mi ngi fas yéene ànd ak bis bi ak ñi mu muy bokkam yu baax yi di njabootu boppam muy soxna Sukayna Mbàkke bintu sëriñ Mohamed Taïf soxna maam Faty bintu Serigne Mohamed Taïf ak soxna maam Faty Jaxate ak mboolem njabootu kër gi ak bokki bopp yi ak bokki dara di ñoom ñëpp kon bis baa ngoog mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam kañ lundi le 18 octobre 2021 yemoo ak fukki fan ak ñaar rabiul awal 1443 fan ci bayal bi jàkkar ko Cheikhul Khadim fii ci Louga noo ngi woo ñëpp di ñaar ñëpp ñu àgg ci ak jàmm te lépp luñ ci def mu day ak ngël mu sëriñ bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh فمن يواسي مولدا خير البرايا أحمدا فك سيد سيدا بدرا بخير الوعد